fay bi Ibrahima fay bii ma woo ko mu daj si Ibrahima ma ne ko ni que livre ma joxoon euh, am na ko ko nangu si xam nga lan la bind si dédicace bi mhm. dafa ni moo ma xam mon leader mon collègue à l'Assemblée nationale <laughs> kon nag am nañu yaakaar yal na yàlla def ñu boot loxoom ni ko yàlla digle si alxuraan mhm. wujuhun yawma izin ma لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة yàlla na ko yàlla defal yaakaar boobu yàlla bu mu des dama bëgg nag mu nekk un exemple pour l'ensemble de l'élite du Sénégal il y a eu l'élite prédatrice qui depuis l'indépendance trahit la cause de ce peuple-là moom il a toujours été fidèle il a très vite compris ce dont le peuple avait besoin. Et il a campé sur un aspect important de ce dont le peuple a besoin pour son développement, moins le développement du capital humain. Toute sa vie, il l'a consacré au développement du capital humain. ñu am nag lu nga xam ni daf nu naqadi rek mais yàlla lu ko neex mu def fa alun li maa yurid waaw fa alun li di yurid yàlla bi muy bind Ibader tàgguwunu kon nag yëppam la jël si yàlla dafa nekk buur nekk borom waaye borom la gën nekk buur li ñuy naqari nag mooy que li mu sumboon mooy l'histoire générale du Sénégal et moi je ne connais pas au Sénégal une autre personne capable de mener ce bateau jusqu'au port c'était Iba Der yàlla nag lu nekk mën na jël na Iba Der yóbbu na yan nag si wutal ko nga xam ne kii mën na continuer euh, ba euh, terminer li nga xam ne nii su mun na li koy ñaanal rek yàlla gàttanu ko si àjjana jox ko lépp lu nga xam ne yéen a ko fii. jërëjëf sëñ mu fay ko jërëjëf sëñ jërëjëf. am am grand. Monsieur le professeur. Non, non, non, attends, attends. Vous savez, Ibader a été notre professeur, le mieux placé pour en parler, c'est vous. C'est le ministre, c'est le ministre. Non, non, non, moi, moi j'ai parlé ce matin. Non, non, mais tu es là. Parce que nous sommes une génération, il a été notre professeur. Donc mm -hmm. le mieux placé pour parler. Bon, non, écoutez, mais juste un euh, petit, un, un voilà, en, vraiment en dehors de toute autre considération, Alifa, moi tous les autres que vous verrez ici, on a suivi les enseignements du professeur Benekam. Je pense que c'était un très très grand maître au sein de l'école de Dakar, qui était une très très grande école. Et je pense que tous ceux qui sont passés entre ses ont pu à un moment ou en un autre servir ce pays comme il a plus de siècle. Donc c'est très triste pour nous aujourd'hui. Mais sachez qu'on est tous prêts à reprendre le flambeau et à continuer les combats qu'il a En Afrique, comme disait professeur s'il vous plaît, en Afrique, on a l'habitude de dire quand un, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui est brûlée. Il n'était pas suffisamment vieux. Donc vraiment, c'est prématuré pour nous. Oui, mais, mais euh, euh après... Euh, non, mais, il ne brûle pas, il ne va pas brûler. Plus ça ne va pas brûler. Pas Sa bibliothèque ne va pas brûler, on va la, on va la reprendre. Ne vous inquiétez pas. Vous allez reprendre le flambeau. Absolument. Allez, merci. D'accord. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Monsieur le ministre. professeur Bouba Diop université Dakar daa doon jàngale lu mot euh, fanweeri at professeur Iba Der man ak euh, moom ak ñeneen ñoo sumb liggéey bi ñuy wax taarixu Sénégal euh, man mii ci pàcc bi gën a yàgg ci la liggéey Sénégal sunu maam yi fu ñu jóge ba ñëw fii ñu nekk professeur moo ñu tekkee ñun ñëpp ci liggéey bi bon liggéey bi am na lu ci jot a sotti gis ngeen ko génnee nañu juróomi téere mu des yeneen téere waaye li ñu mën a wax doomu Sénégal mooy eh, am nañu yaakaar ndaxte bi ñu mujjee ca ak moom xelam dal na parce que nee nañu ko yaramam dafa sutante waaye ñi nga xam ni ñoo fi nekk incha allah eh, daañu abale liggéey bi kon loolu rek la ñu mën a wax di ko ñaanal yàlla xareyaat ji ko àjjana eh, di wax mbokk yi itam eh, ndax xale yi roy ci moom ndaxte ñun buñ koy xam booba dafa bëre booba étudiant lañu ñu jàpp ko tëj ko kaso ci la préparé licence am jóge fa eh, nekk ministre bi mu nekkee ministre man boobu man mii maa jiite syndicat professeur université yi ñu jóge fa jàppante bu baax bind li ñuy bind kon nag metti na waaye na euh, doomu Sénégal yi am yaakaar ni liggéey boobu dana sotti te réewu Afrique yu dañ si bëgg roy ndax dafa bind ci histoire Sénégal bind ci histoire Afrique bind ci histoire doomu aadama lépp loolu yëpp bon nag euh, sénégalais yi war nañ ko xam xam liggéey xale yi xam bu baax li mu liggéey am nag luñ ci yokk ndaxte liggéey histoire moom ci nekk nag nga am loo ci yokk rek euh, liggéey bi di jeex ma waaw jubbanti defaraat yokkaat yenn saa yi moo am werante waaye li ngay wax rek na nga am ci loo ko sukkandiku wax ko ci. professeur tey jii nii euh, lan euh, tey jii nii euh, professeur Iba Der Thiam bu mu hmm. lan moo la njëkk a marqué ci li nga xamante ne ci lan nga fàttali li nga xamante ne jëf leen dem ensemble à part écriture réécriture histoire du Sénégal ci parcours am. li may njëkk fàttaliku mooy ku am lu mu gëm. te fexe ba mu sotti def ko loolu moom moo ko gën a màndargaal euh, maanaam ngëm dara nga def na ba li nga gëm nga fexe ba mu àgg sotti nit ñi gis ko ndaxte loolu moom doole ju amoon maanaa la bi muy wax ni booba dañuy bind histoire Sénégal ñu bari gëmuñoo loolu mën na sotti mu fexe ne ba bu ñu def ko te ku laa biir la woon aussi euh, nit war a yiwan euh, bokk loolu daal mooy li nga xam ni moo ko gën a Euh, ràññee ci jàngalekat yi ak gëstukat yi. loolu loolu loolu mooy li nga xam ne moom laa gën a jàpp. tey jii nii génn na àddina yéen le monde universitaire lañ ngeen di réclamer ci état du Sénégal. waaw ah loolu moom xam nga euh, lu ja lu ja lu ñuy laaj mooy euh, xam-xam ñu gën ko faajaal ci réew te li ñuy wax ñu jëfe ko professeur. tey jii bu ñu ne réew bala muy dem kanam nit ñi dañoo war a yeewu jàng ak mënal seen bopp te nag booy wax rek nga jëfe ko euh, yàgg naay waxtaan ak moom ci mbirum euh, Livent alphabétisation ñu jàng suñu làkk yi yooyu yëpp dañ koy wax waaye des na lu bare donc li ñuy laaj mooy nañu bëgg suñu bopp euh, bañ a xeeb kenn waaye faydal suñu bopp tey jii wolof muy pulaar di séeréer ñoo ngi koy jàngal nit ñi waaye boo doxee ci mbedd yi boo gis ñi ko jàng jarul leen dara ndax indilu leen njariñ te gisuñu ko loolu la war a góorgóorlu fexe itam ba nit ñi euh, am liggéey xale yi tedd réew mi li ñu yàlla may fii bari na boo amee ay ñeenti dex am ay géej toll nii réew mi nit waru fi yooyu daal la yaakaar ni daal mën nañ ko euh, yaakaar ni euh, professeur gëmoon na loolu de te war nañ ci góorgóorlu. sama dernière question en tant que universitaire euh, gis nañu aéroport Blaise Diagne. waaw gis nañu aéroport Léopold Sédar Senghor gis nañu université Cheikh Anta Diop ak université Assane Seck da di xaarandi ci benn mandargal bi ñu mën a tuddee Iba waaw man de si sama xalaat. am na lu nga xam ni senegal amu ko te war na ko am mooy kàggu bu mag a mag li ñuy wax bibliothèque Sénégal li fi mos a am ci téere ak téere yi nekk ci adduna bi ñuy wax ci Sénégal mu am loolu Sénégal amagul bi amee ba léegi wax ji nag bare na waaye loolu réew boo ko amul amoo dara Amérique boo nee cëpp libraire du Congrès lañ la yóbbu France boo nee cëpp ñu yóbbu la senegal nationale góor góor lu am bibliothèque téere yi nekk kër Iba ak yeneen téere yi nit ko soxla ñëw gis ko fa bu boobaa beneen Sénégal la ñuy gis te li ñuy jàngal nit ñi itam fexe ba nit ñi li ñuy jàng mu amal leen njariñ boo ñëwee Ndakaaru gis Ndakaaru ñu tuddee ko Ndakaaru nga xam lu tax dëkk raw la tudd xale yi ko xam barewul boo nit ñi dañu war a dellu siwaat nekk nit loolu la professeur doon jéem a def waaye des na de waaw boo demee Thiès nga xam lu tax Thiès ñu de ko Thiès ñeneen ko xam lu tax ñu tuddee ko yooyu mooy tax nit ñi nekkaat nit am fayda kenn bañ leen yàpp waaw loolu daal la doon woote te loolu la ñu war a góorgóorlu waaw jërëjëf